ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci émission bi weesu jàngoon nanu ci mbirum ñaari doomi aadama ak awa yu jëkk yi di kayin ak abel gisoon nanu ni ku nekk ci ñoom bëgge woon màggal yàlla jébbal ko ay sarax kayin jëloon na ci li mu bay jébbal ko yàlla wante abel jébbal yàlla mbote mu amul sikk rendi ko ni sarax suy muur bàkkaar noonu mbind mi ne yàlla aji sax ji nangul abel waaye nangulul kayin lu tax yàlla nangul abel te nangulul kayin ndax te njub bi yàlla tëraloon moo ne peyug mooy dee te bu deret tuuruwul mbaalug bàkkaar du am yàlla àtte na abel ni ku ci limu gëm kàddug yàlla ba indi saraxu deret ngir fay bàkkaaram waaye kayin moom dafa doon fexe jege yàlla ci pexey boppam ba tax yàlla nangulu ko tey ji nag danu fas yéene àggale sunu njàng ci mbirum kayin ak abel ndax xam nga li xewoon gannaaw ba yàlla bañe nangul kayin saraxam ci téereb njaalbeen ga saar ñett ay juróom bind mi nee na kayin nag daldi mer lool ba xar kanam bi lëndëm lu tax kayin mer loolu jafewu la xam ci misaal su ma defee lu bon te am ku ma ne danga juum war nga soppeeku def lu jub naka laa mëna wuyoo ki ma yedd damay nangu cik woyof ay waxam te soppi dundin mbaa ma mere ko te wey ci sama njubadi yàlla yedd na kayin ngir mu gis ne jëfi loxoom yi mu ko indiloon ni sarax amul woon benn njariñ fa kanamam yàlla dafa bëggoon kayin réccu te indil ko saraxu mbote mu amul sikk ni ko abel defe woon yàlla dafa bëggoon a teg kayin ci yoonu njub wante kayin ci rëyam bañ nangu tooñam fa kanam yàlla mu daldi mer ba xar kanam bi lëndëm naka noonu aji sax ji ne kayin lu tax nga mer te lu tax sa xar kanam lëndëm soo defee lu baax sa xar kanam dina leer soo deful lu baax bàkkaar a ngi tëdd ci sa bunt di la tëru ni rab te di la wut waaye nanga ko noot lu tax yàlla doon layoog kayin noonu ndaxte dafa bañoon kayin sànku li yàlla bëggoon mooy kayin tuub ay bàkkaaram te jaar ci yoonu njub yàlla doon na artu kayin ci noonam bu soxor bi ko bëgg a moom ak askanam noon boobu moo tuddu bàkkaar lan mooy bàkkaar bàkkaar mooy jafe-jafey àddina moo di sunu noon bi gën a bon bàkkaar dafa mel ni jaan ju fees dell ak dangar tey rey dafa mel ni ferñeent su tuuti su mën a lakk àll bu yaatu bàkkaar jumla bu seytaane taal muy lakk àddina kàddug yàlla nee na bàkkaar mooy jàdd yoon kuy def bàkkaar ci seytaane nga bokk ndax seytaane ca njàlbeen ga ba tey day bàkkaar bàkkaar mooy doole ji yëngu ci sunuy cëri yaram di bëre ak liy dëgg te baax bàkkaar mooy lépp loo xam ne àndul ak coobare yàlla bàkkaar mooy bañ a gëm kàddug yàlla te déggal ko aw sa yoonu bopp mooy bàkkaar luy doon mujjug ñi aw ci seen yoonu bopp bañ a gëm yàlla te déggal ko mbind mi ne na seen pey mooy alku ba faaw fu sore borom bi yàlla ak ndamam lu rëy ñiy jaar ci yoonu mucc wi yàlla tëral des na leen tàbbal ci dund gu jeex waaye ñi sax ci bàkkaar di dëgër bopp tanxam lu dëgg gi seen pay mooy dooni merum yàlla ak toroxte wante kàddug yàlla nee na yàlla bëggul kenn alko waaye ñépp tuub seeni bàkkaar yàlla bëggul woon kayin sànku ci biir bàkkaaram li bëggoon mooy kayin réccu génn yoonu njubadi wi mu tànnoon te jaar ci yoonu njub nu nu ko gise woon émission bi weesu yàlla aji sax ji feeñaloon na pexe mu bàkkaarkat yi mënoon a jaar ba jub ci kanamam abel gëmoon na pexem yàlla moomu ba rendi mbote mu amul sikk ni sarax suy fey bàkkaar abel gëm na li yàlla wax ne peyug bàkkaar moo di te su deret turuwul mbaalug du am saraxu mbote mi moo taxoon abel am xel mu dal fa kanam yàlla xamoon na ne moom ci boppam bàkkaarkat bu yelloo mbugalu yàlla la wante mbote ma amul woon genn tooñ wuutu na ko mbote moomu mu rendi misaal la woon ci musalkat bi naroon a ñëw ci àddina ngir tuur deretam ni sarax suy fay boru bàkkaari nit ñi benn yoon ba faaw. kayin moom dafa mbubboo woon gëm yàlla waaye ay jëfam weddi na ko kayin teral na yàlla ca gémmiñam waaye xolam sore na ko yàlla deretu mbote la laajoon waaye kayin indil ko ay jëfi loxoom kon nag màggalu kayin amul woon benn njariñ fa kanam yàlla ndaxte nanguwul woon yoon wu jub bi yàlla tëral léegi nag nanu jàng aaye bi ci topp ba gis lu kayin def gannaaw ba ko yàlla yeddee ndax saraxam su amul njariñ mbind mi nee na noonu kayin ne abel rakam nanu génn te bi ñu nekkee ca tool ya kayin daanu ci kaw abel rakam ma rey kayin lu mu defoon ndax réccu na ndax gëmoon na yàlla ba indil ko deretu mbote ni sarax ngir bàkkaar déedéet kayin tegoon na bàkkaar ci kaw bàkkaar ndax li mu daanu ci kaw abel rakam rey ko doy na waar de kayin mi bañoon a tuur deretu mbote ngir yàlla baal ko ay bàkkaaram léegi tuur na deretu rakam ji lu ngeen ci xalaat kan moo soloon ci xelu kayin mu rey rakam kan la kayin doon déglu seytaane dong mbind mi nee na kayin reyoon na abel ndaxte ci iblis la bokk gisoon nanu ba noppi ni yàlla yëgle woon ne dina am ñaari xeet ci àddina si xeetu yàlla ak xeetu seytaane abel ci xeetu yàlla la bokkoon ndaxte gëmoon na kàddug yàlla kayin moom ci seytaane la bokkoon ndaxte gëmul woon kàddug yàlla ci li jëm ci xeetu yàlla ak xeetu seytaane kàddug yàlla nee na dingeen leen xàmmee ci seeni jëf lii mooy ràññale doomi yàlla ak doomi seytaane képp ku dul def lu jub bokkoo ci yàlla naka noonu itam ku soppul sa ci yàlla ndaxte xebaar bi ngeen déggoon ca ndoortele mooy lii nanu bëggante te bañ a mel ni kayin mi bokkoon ci iblis ba rey rakkam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 bi loolu amee aji sax ji ne kayin ana sa rakk abel mu tontu gisuma ko de ndax may sàmm sama rakk yàlla ne ko loo def sa deretu rakk jaa ngi yuuxu ci suuf ba ci man léegi dinga alku ba suuf si sax sip moom mi ubbi gémmiñam ba naan sa deretu rakk ji nga tuur boo beyee dootul nangu dinga dëkke dang dang di wëreelu ci àddina naka noonu yàlla mbugal na kayin ne ko boo beyee dootul nangu wante yàlla mbugalul kayin ngir daan ko waaye ngir mu tub ay bàkkaaram te rëccu ni wolof njaay ne nag weq na doomam waaye bañu ko waaye lan la kayin defoon ndax tuuboon na bàkkaaram déedéet mbind mi nee na kayin nag daldi joge ci kanamu aji sax ji dem dëkk ci réewu nodd kon kayin mi falewul waxi yàlla daldi dëddu yàlla ba sore ko du yàlla moo soreel kayin waaye kayin moo soreel boppam yàlla tey ji lu ëpp ci doomi aadama ni kayin lañu mel dañu réer ci seen bàkkaar ndaxte dañu tëjal seen xol yàlla dañuy wax naan yàlla ku màgg la te ci seeni xol ñuy xalaat ne yàlla dafa sore kenn mënu ko xam wante kàddug yàlla dafa nuy won ne yàlla sorewul kenn ci ñun ndax moom mooy jox ñépp bakkan ak ruu ak lépp ci moom lañuy dunde moonu gën a jege sax sunu buumi xol yàlla xam na la bu baax te dafa bëgg nga xam ko bu baax yow itam lu tax nag lu ëpp ci nit ñi demuñu ba xam yàlla kàddug yàlla wax nanu lu waral loolu bi naan ci nii la àtte bi ame leer gi ñëw na ci àddina waaye nit ñi lëndëm gi lañu taamu ndax seeni jëf yu bon képp kuy def lu bon day bañ leer gi te du ci ñëw ndax ragal ay jëfam di feeñ bëccëgu ndara kàmm nit ñi xamuñu yàlla ndaxte ni kayin dañu dëddu kàddoom yonent yàlla daawuda bindoon na ne kàddug yàlla nit la ci samay tànk di leer ci sama yoon kon ku dëddu leeru kàddug yàlla ci lënd mu bàkkaar rekk ngay toog te doo dem mukk ba xam yàlla yàlla day mel ni ku la sore wante yàlla dafa la bëgg xamal ne sorewu la mu ngi ci sa ginnaaw mu ngi ci sa wet mu ngi ci sa kanam sax yàlla sopp na la te dafa bëgg am diggante bu jege ak yow wante waraloo mel ni kayin mi dëgër bopp ba bañ a nangu yoonu njub wi yàlla tëral yàlla dafa bëggoon kayin réccu ba tey yàllaa ngi sant nit ñépp koo mën a doon ak foo mën a nekk nga rëccu wàññeeku ci moom te gëm kàddoom ndax xam ngeen lu réccu tekki mu ngi tekki soppi say xalaat yu jubul rëccu mooy nangu fa kanam yàlla ne juum naa ci samay xalaat ci lu jëm ci yoonu mucc wi nga tëral rëccu mooy xam sa ñàkk doole ngir neex yàlla te nangu fa kanamam ne amuloo menn pexe ngir musal sa bopp ci atem bu jub bi rëccu mooy tuub say bàkkaar dëddu say xërëm te wàññeeku ci yàlla ak kàddoom gi la yëgal yoonu mucc loolu mooy rëccu gu wóor gi ci lu jëm ci kay nag moom mësula rëccu kayin tànn na wéy ci pexey boppam ba tax mu bañ a nangu yoonu njub bi yàlla tëral loolu tax mbind mi ne kayin sànku na ci yoonam wu jubadi ba tax yàlla dencal ko lëndëm ya gën a tar ba faw ah mbokk yi bu nu mel ni kayin wante nanu fonk artub yàlla bi wax su ngeen tuubul seen bàkkaar dingeen sànku noonu yéen ñépp itam ateb yàlla dafa wóor te dina dal ci kaw képp koo xam ne raxasuñu ko ci baakaaram bu leen juum ci li du ngeen jub mukk fa kanam yàlla ci kaw jëf yu baax yi ngeen mën a def ni kayin am na nit ñu bari ñu foog ne ñu mën a rëcc àtteb yàlla suñu fexe topp seen sarti diine ak ay ndigalam wante kàddug yàlla dafa wax sàmm yoon wi taxul kenn jub ci kanamu yàlla ni ku am sobe lanu mel nun ñépp te sunuy jëf yu jub yépp xasaw ni sagar yu tilim ci yiwu yàlla ngeen mucce ci kaw ngëm te loolu jógewul ci yéen mayug yàlla la du pay jëf ngir kenn du ci kañu amin jërë ngeen jëf ci déglu bi ndegam neex na yàlla ci émission bi di ñëw dinanu gëstondoog yéen ci lu jëm ci askanu aadama ak yonent yàlla enok waaye su fekkee ne am ngeen laaj ci lu ñu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li ngeen dégg tey ci kàddoom yàlla dalee na muñal ndax bëggul kenn al waaye ñépp tuub seeni bàkkaar waaye su ngeen tuubul seeni bàkkaar di ngeen alku